procès Pakistan bi nga xam ne moo waral lii nga xam ne dafa ñëw ci réew mi ñëw ci gox yu bëree bari ci Sénégal yàlla dogal Touba bokk ci ñun ñu war a nekk exemple ci Sénégal parce que lépp lu ñu lim ci senegal ba tudd ci Touba rek Touba war na ci man war na ci feeñ war na ci gën a baax la war na ci gën a rafet la war na ci gën a dëggu loolu moo tax bii procès bi ñëwee Sénégal ñu lim boole ñu ci ñu ne woon nañ fexe ba nekk exemple bi rek sant nañ yàlla nag ndax juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak ñaar ñooy communes yu Sénégal yi ci maire yi yàlla dogal na benn maire rek moo ñu jiitu ci mbooleem nattuwaay biñ ko nattee moo jiitu Touba te lëm ñu jiitoo dafa am loo xam ne am na ko te Touba amul loolu loolu la jiitoo waaye du ci lu gën a leer du ci volonté du ci transparent du ci leneen loolu nag soo amee grâce à suñu conseil technique yi nga xam ne ñoom la ñu àndat muy euh, waa ARD ak service technique yi ak volonté conseil municipal bi PACASEN bi ko été Sénégal indee ànd teg dugal ko ci réew mi daf na ko nanga seet dëkk yi nga xam ne ñi ngi góor góorlu tey dox lu leer te luñ am def ko ci seenu askan nga de nga intervenir leen ma foofu jàppaleel ma ñooñu te loolu lay doxe fu mu joxool xam ne la ñuy am mu néew ak a bëri danañ ko yóbbu ci askan wi te dana le bu ñu demee ci askan wi dana leer looloo tax mu ñu dugal ko ci looloo tax Touba dëggu ci ñu natt ko ba xam ne mi ngi dox ci loolu ñu dugal ko ci te loolu fa si naa doxe parce que lii ñu am ren daaw ku nekk gis na ko def nañ ko ci addition doo ak benn torson bi nga xam ne muy godron bu jógee na dem ba Saam. di juróom-ñaari kilomètres li ñu am daaw foofu lañ ko programmé li ñu am ren gis ngeen niñ ko programmé programmé nañ fukki village ak benn maanaam ci yóbbu fa ndox foo programmé nañ fukki village ak benn pour dolli fa courant foo programmé nañ juróomi poste de santé ci ay gox waaye programmé nañ benn centre de santé référence boo xam ne lii ma leen wax ci mag ñi ak xale yi ak jigéen ñi sa loolu programme nañu ko ci dëkk bi ngir ñu am foo xam ne danañu fa fajoo moo faju moo xam ne dana mérito ak waa dëkk bi loolu nag yemuñu ci ay école yi kasaalika école yi ku nekk xam na ne xale yi dëkk bi am na macha allah am nay xale ñi ngi ci daaray alquran yi ñi ngi ci centre de formation yi waaye war nañoo jàng njàngam école li nga xam ne aussi dafa bokk ci jamono te nit da nga koy jàngal adduna jàngal ko ah, nan lay def ba jaamu yàlla sunu borom tabaraka wa taala waaye jàngal ko nan lay def ba am texe yowmal xiyam ñett ñii la ñu wa la bépp wajjur bu jur doom gàddul nga ko sa doom fii ba baa muy am fukki at ak juróom ñett nga teg ko ci loolu ci diggam ak adduna diggam ak boroomam nan lay xame diineem loolu kenn ku ci nekk warlul nga ko sa doom loolu nag moo tax commune bi jël ay matuwaay yu wére wére lu bare bare bari ci loolu